dénkaane Cheikh Bamba daa dénkaane ci mbokk yee jullit yi lay ci mbokk yee jullit yi nuuru daare ni rek sama xel daw sama xol wajaxal kullaha buyuta yàlla defal fépp foo xam ne rek am naa fa pàkk wala nu tuddee ma kër ga na mel ni jumaa ci kaw suuf kon kooku buggul daraam bon kon kenn ku nekk ci ñun ñi ñaan na nga yor darajey anbiya u waxuma sax ay sëñ tubaa ni ko Bousra waxee léegi ne séance la bu sëñ tubaa di nu wax ne dees nuy jël taalibe bi mën na xëy ñàkk li am lii te sëñ bi dig na ko àjjana déedéet ñun dañoo jël suñu àddina ak suñu àllaaxira jébbal ko si Ahmadou Bamba Xaadimal Moustapha danoo jël suñu lépp jébbal ko Serigne Touba loolu taxut sëriñ bi nag ci boppam moom ci boppam it la ko warlu suñ digg ak nun ak moom loolu sax nun suñu xel waru ci sax di àgg dafay araam taalibe bi ci boppam muy xel yaar sax ëllëg yowmal xiyaam nan muy def ak sëriñ bi ndax wóowunu ci wérdu wóowunu ci tarixa wóowunu ci lii daf lu woo rek ne ñëw leen képp koo xam ne daal rasulullah yi suñ jaaroon fa nga fas yéene jaar ñëw leen ñëw leen lolu kon warna tax nak nun suñu bopp rawatina nak jeunesse bi ñu nek ak lu nek lu bëgg lu gur waaw lu bëgg lu gur nak di lu ci bax suba di lu ci bax ngon ci ni nga xamne la ko serigne bi bëgge talib bi warul ag fo xamne ci diggam ak serigne Touba serigne bi dootu ko soxla te nun sa su nek nu wo serigne bi te da nga di ko suñu borom yalla daf ko ko na nga oti ci himma bi may wax ak yeen ci tasawuf yalla def ni ko da nga oti ci ité yoonu murit li ko fondement mooy tasawuf bu sel ité moy lan nit ki naka lay fexé ba wo yalla mais yalla aussi naka lay fexé ba wo jamam yalla naka lay fexé ba wo jam bi di ak mom di duggal ci mom ay secret ba fi ni nit day dem ba fek nga fek sa morom nit muy caddi caddi di say nga tek loxo mu contact boo dugganteeg yàlla suñu borom mu am lu mu dugal ci yow te dugalu ko ci kële kële énergie boobu mu perte yow mi nga xam ne da ko koo góorgóorlu boo ko tegee kii nga rechargé kii kii daal di rétablir at dem. dénkaane Cheikh Bamba daa dénkaane ci mbokk yee jullit yi lay siwtaane boo xam jotee jàngi leen ba xam dénkaane yi Cheikh Bamba daa dénkaane ci mbokk yee jullit yi lay siwtaane